jërë ngeen jëf euh, yéen suñu mbokku internet bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci dellowaat rek ku nekk euh, sa wàccuwaay amaat li di kontaante ak mbégte bu baax nag comme ni ma ko faral defa kilifa yëpp wala sëriñ boo xam ne dal naa ci biir site bi rek fas séeni naa ñu waxtaan ci xam-xam yaatal ci bu baax a baax yaakaar naa nag jëmm jii ma dalal tey jii nii ak sañ seeb bu jekk bi macha allah ah sëñ Ousmane tey nag ndaanaan ga gars yi dama leen di dalal ñu ndaanaanu waaye tey nag ndaanaanu nga macha allah kooku mooy Serigne Ousmane ñas tey nag dinañ waxtaan ci xam-xam ci ponk yu bëri bëri yaatal ci waaye lii di xew-xewu jamono ni ma koy saa su nekk di actualité dinañ ci waxtaan tey ndaanaan mi la dalal tey bisimilah mu bàyyi la nga ne mbokk askan bi. alhamdulillah allahuma inni an taqraba ilaykum bi tilawati alazim an munzil ala rasulillahi sayidina muhammad qaasi an li wajhil kalkarim wala quwwata wala quwwata illa billahi al-ali al-azim subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alimun hakim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki àdduna mbokki Sénégal mbokki bitim réew rawatina site bi seet suñu di deux cent vingt et un people nga xam ne ci suñ télé yi ci la bokk di télé bu mag ñu ngi leen di gërëm di leen ndokkeel di leen wàccee seen wàccuwaay di jiital ci nuyoo Mouhamed ak sëñ Cheikh bisimilah tafaddal jërëjëf euh, Serigne Ousmane Niass ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane ginnaaw suñuy set yooyu tànd ak dal ñu ngi ciy kontaan bu baax di naan la dalal jàmm atia tey nag fas yéene ñoo waxtaan ci xam-xam yaatal ci juróom-ñeenti ponk jàpp fukki ponk waaye lépp ci diggante lii di paj ak ñaan lañ koy wér atia lii di xew-xew jamono du lenn lu du actualité ni ma ko waxee saa su nekk euh, jëm ji nag su ngeen ko gisee mu jógee ba Kaolack ñëw fii Dakar am na lu xew ndax euh, bu leen jàpp bu leen fàtte ne euh, niki le 3 mooy. convocation kii di président Ousmane Sonko foopee dinañ ci yaatal ndax am na lu mu ci bëgg a wax am na lu mu ci gis waaye nag nañ topp vidéo ba mu jeex làmb ji dinañ ci waxtaan ci diggante kii di Siteu ak Papa Sow su ngeen bëggee xam kii daan topp leen ko ba mu jeex waaye kii di Balla Gaye ak Boy Niang <laughs> tey ñu waxtaan ci moom de jëmm ji war ko gis rek war nga koo xam ne dinañ yaatal ci ponk yu am solo atia damay ñëw ci listixaar wala seet nañ ko defee saa su nekk nga am loon ci baaxee ngir ñi nga xam ne ñu ngi lay bàyyi xel na moon la ci biir sëb damay simbi sama verre yi ñëpp xàmmee kuy wax sëñ man dama nekk n'importe qui ci ñaan yàlla mi ñaan mi duma ci n'importe qui ku bëgg nag sa aajo faju toppal émission bi ku bëggul sa aajo faju nag boo ko rombee rek bàyyil nga dem ak koo mën a doon nag sëñ Cheikh man dama mën a seet dama mën a ñaan mm-hmm. dama mën a gis mm-hmm. nag dégg nga ma dama mën a seet mm-hmm. dama mën a ñaan dama mën a gis teg si te dama mën a sañse lu waay mën lu ne lekk du metti chaque jour ma wax ko sa bopp nag buy metti neel dafay metti taxut bopp sénégalais di metti seet duma ci moromi benn sëriñ bi toog di wax sama maqaama ak sama ba ak sama dayoo ak li ma yàlla may romb na ma toog fii di wax ci ay mbir naan ay seet nangam ak sangam ñii seetaan sëriñ Ousmane international ñëpp xam nañ ma xam nañ man maay kan bisimillah xuusal ci beneen question ñu waxtaan bul ma laaj ci seet du ma ci moromi kenn. allah acca dégg ngeen fa Serigne Ousmane daaneele acca ci mu koy waxee saa su nekk ku mu ko xam ni ne euh, bëgg nga mu seetala seet bu wër rek wala listixaar bu wër rek yow fexeel nga essayé jokkoo moom ndaxam na loo ko xamante ni suñu borom dénk na ko ko mu di euh, mbiram seet ak lii di listixaar acca waaye damay ñëw ci jaaro yi donte jaaro yi bari nañ waaye jaaro Serigne Ousmane xam na lu ci nekk de ñu del si waat ci sa jaaro bopp. jaaro dafa bari coow fi mu toll nii sëriñ bu ne mu ngi jóg naan jaaro sëriñ bu ne mu ngi jug naan jaaro nañ yem te ba jaaro yi nga xam ne ñu ngi koy jox nit ñi moodu moodu yi dañ leeni lor chaque jour ma wax ko nañ ba jaaro yi ñuy jox moodu moodu yi ak jaaro yi ñuy jox ñi nekk ci Sénégal jaaro yi ñuy joxe baaxut man nag nee naa la ne la saak jaaro tëgg du ko def waxoon naa la ko de saak jaaro man tëgg du ko def xalwatu laay tëju bu ma ubbee jox la nen wi nga toj boo tojee raxasal ba mu set nga jël sa jaaro nga dem lu waay mën du métti. sëñ bi ñu dellusiwaat nen bi ngay toj jaaro bi. nen bi ngay toj yaa toj man tojuma tojuma nen. li may wax dafay leer man Serigne Ousmane tojuma nen bu ma tojoo xaloo ba génn dina la oo nga ñëw amul sax lu ñuy kéré bu la neexee tamit indil nen bi yow sa bopp nga ñëw ma def lu may def nga toj dem jël sa jaaro dem. toja sarxan wa maxriban alal dina fa jugee ñëw ci yow. di nga nangoo ndeyjoor ak càmmooy ba yaakaar ne jinne moom moo lay jox. lu waay mën du métti. mbir mi man dama koo mën. gis nga mbir mi hmm. man dama ko mën duma ci moromi kenn nag. ma dégg fenn fooy toje jaaro fooy toje nen jaaro génn xanaa loolu xanaa loolu ab jinne la ko jox wala lan. bu ma laajati ci jinne yoruma lu ñuul duma ci dox soo bëggee nag suñu waxtaan maag yow mu neex bul ma laajati ci jinne oh, waaw waxuma ci jinne ah, sëñ Cheikh waxuma ci jinne man man man yëfin naa fekk dama cee nekkut. ay jinne yi nii mm. yaa ngi dégg yooyu nekkuma ci alquran moom laa xam ak sunguf yaa ngi dégg alquran moom laa xam ak sunguf nekkuma fi di wax di convaincre ñu may seetaan ñu yëkkati seen alal jox ma ko yaa ngi dégg mm-hmm. ma di ko lekk ci sama nafsu bakkan wa aklu amwaalu naasi bi xayri tiibi nafsi yaa ngi dégg mm-hmm. wa aklu bu lekk am amwaalu naasi alalu nit ñi bi xayri tiibi nafsin ci sa teex ak bakkan man loolu nekkuma ci man damay jaamu yàlla kurus moom laa xam mhm. tëju xalwatu bu may tëju xalwa gerte kese mooy dugg ak cere wala muudaake mhm. yii moom mooy dugg su may tëju xalwa man Serigne Ousmane Niass man damaa caaxaanut damay liggéey ku ñëw nag ma dimbale la mhm. aw ma jot ak toog fii di pratiquer di créer di dàq santé di def ay affaire man yooyu nekku ji ku ma gëm boo ma ooyee ma faj sa aajo koo mën a doon ku ma gëmut bul ma oo ku ma gëm ooteel nga wax ma sa aajo ma faj ko wu mm-hmm. biir ak wu biti jaxran wa yaxzatan mm-hmm. ku ma gëmut bul ma oo képp ku may oo rek di def na ko sudu noonu mm-hmm. dinaa jëflante ak yow ci baatin mu xam ne duma ma boromi bët man yoruma bëtu neen baatin laa yore te dafa bëri sëriñ suy génn fii di wax mm. yorewuñ baatin bëtu neen lañ yore moo tax ma commencé nela la du ma n'importe kii ci ñaan yàlla gis nga ñaan mi mhm. du ci n'importe qui laaj ma ci xam-xam ak ban. a kon euh, am na solo kooku mooy Serigne Ousmane ñas atia dañuy dox ba léegi wéyal jàll ci yeneen ponk dama ñëw ci mbiram papier su ma ko waxee sama xel dina daj suñu mbokk moodu-moodu yi nga xam ne ñaanlu nañ ba sonn waaye dañuy yaakaar ñu ci mel ni yéen ak ñeneen say morom ci nga nekk ci biir réew mi ak bitim réew mbiram papier lañ ci baax képp ku mës a jëflanteeg sëriñ Ousmane Niass ci papier. Mhm. moo xam site bi ak beneen. nañ leen oo yéen ñii retour yi ngeen jot ci képp ku mës a jëflanteeg man ci kayit ma wax la li ma lay wax tegtal nga def ko gisoo ko ah def ma lu la neex def ma lu la neex loo ma bëgg a def def ma ko maa ngi riigu ne pelem lem di dégloo ya may ma ci këyit nga ma laaj buñ paree dina ñëw ci visa gis nga sëñ Cheikh mhm. ñun buñ naxante buñ nekk ci télé yi di wax convaincre nit ñi ñu yëkkati suñu alal joxe gis nga bawal bawal yi bawal bawal yii nañ ba xaalisu moodu moodu yi ñuy lekk laa de. moo waral ne lu xew. bawal bawal yi nañ ba xaalisu moodu moodu yi ñuy lekk di leen boloke. yaay man tooñu ma. Ah, retour yëpp dafay tourner di ñëw ci man. Hmm? moodu moodu yi sonn nañ amuñ dara duñ yaakaar jëmm ju tool ni Serigne Ousmane jox ko xaalis yónnee ko ko mu jël xaalis ba encaissé dugal ci kontam di ci def ay soos ak ay ganaar pour lan pour lan loolu mooy lan lan moo leen neex ci loolu loolu lan moo leen ci neex a ah? suñ mënee ñaan nañ ne mën nañ buñ mënoon nañ bayee ñu mën ñu ñaan kenn gëmatul ñaan yàlla di yëkkati ay càngat di ko jox moodu moodu yi dinañ sangu ba dee duñ gis tus tus duñ ko gis gis nga nit ki tey boo ko seetalul yett yi mënoo koo xam bidiwam tabiyaam rawxaaniyam boo ko xamul fan ngay jaar ba mën koo defal càngat gis nga jam ñaajo gi bëri na càngat yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy teg ci CP yi di ko yóndee moodu moodu yi dinañ di ngeen sangu ba dee du ngeen gis dara. jam ñaajo dafa am rab boo xam ne. dafa nekk di yàq garab yi gis nga gàllaaj gàllaaj dañ koy njatab njatab loolu yëfu mag ñi la sëñ Cheikh gis nga njatab man bu ma nammee wax ci xam-xam sama sama àdduna dafay tukki parce que man dafa am philosophie woo xamante si nii dafa nekk si man man dama direct duma ma wax nit di la jay boo ma ooyee automatiquement dama lay wax li nga xam ne moom moo nekk ci man mhm. du ma tricher ko def loo mën wax loo mën boo tëddee rek nalaw gàllaaj yi nag buñ ko njatabut mhm. li nga xam ne moodu moodu yi bëgg nañ ko duñ ko am parce que gàllaaj da koy liggéey sonn si ba bugg a dee yaa ngi dégg bëri na sax sëriñ soo xam ne fi mu toll nii liggéeyatuñ liggéeyatuñ ci gàllaaj yi yaa ngi dégg liggéeyatuñ ci dañuy ñëw jël benn benn benn xob fii dàkkante ko fii rabalante ko ut ay bind jox la ko nga dem nañ ba yooyu loolu amul solo yaa ngi dégg jëm ñaajo gàllaaj yuñ fay yobbu ba ilaa ajali musamman buñ ko njatabut but moodu yi di ngeen song ba dee du ngeen loolu moom dina barka Cheikhu Tidiane Chérif man Serigne Ousmane Niass maay wax ak yéen ku ma xamut bindal demal ci internet bi nga tàppe Serigne Ousmane Niass di nga xam man maay kan. yaa ngi dégg këyit nag ku ma ci jëflanteeg. gisoo yokkute ci sa bopp. sëñ Cheikh këyit ñetti fan laa koy liggéey. ñett tegtal yi laa lay wax nga def ko. sarax yi boo jotee sa këyit. lu soqol attan nga yëkkati ko yónnee ma ko. yaa ngi dégg. loolu ci laay liggéeyee ci kayit waaye gàllaaj yi nañ koy njatab loolu laa am lu may wax laaj ma ci xam-xam ak ban acca euh, ñu dox ba léegi wéyal bu baax a baax nag ndax damay ñëw ci li nga xam ne moo di ay di njàmbat loo xam ne lëmbe na réew mi kii mooy sëñ Ousmane mi ngeen di laajte cey néew kàttan laa bëgg ñuy waxtaane damay sawar laaj la ci loo ñu mën a baaxee ci mbiram góor a sëriñ yu bëri ñu ngi waxtaan ci kàttan mm-hmm. ah sëriñ yu bëri ñu ngi waxtaan ci kàttan mm-hmm. naan koy faj yaa ngi dégg. sa hmm. saa su ma xëyee seen jabar yi dinaa jot retour ci ñoom. ku ma la de. sëriñ yu bari waaw ñu ngi ne dañuy faj kàttan. Hmm. di joxe sunguf. di joxe ay biteel. Hmm. di joxe ay camp. naan dañuy faj kattan seen jabar yi laa maa ngi jot ay résultats ci ñoom. rëy te boo seetloo sëriñ su ëpp doole si génn fii. naan dañuy faj kàttan ay ngóora amuñ jabar. gis nga sëñ Cheikh man dama direct lu nekk ci man kuma gëm mm-hmm. ooma ku ma gëmut bu la neexee seetaanal ba pare romb ma dem kàddu kër gi du du wax luy dagg mm-hmm. Serigne Ousmane moo koy joxe kàddu gi du du wax luy dagg laa sëñ bi moo koy joxe ku kàddu gi doy sëñ baa ngi boo contacté ci numéro yi mm-hmm. di nga gis résultat yaa ngi dégg mm-hmm. këpp ba bég góor day dëgër ah, këcc góor day dëgër këcc am sa baat moom sa jabar dafa am lu ko waral gis nga góor mm. boo amee dépasse poos mm-hmm. te amoo dépasse kawlal yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg dof bee ca buntu kër ga yéen a yem. fii dinañ sunguf si nga tee nii. góor day dëgër kàddu gaa ngi. nga bii ci ñaata waxtu. toogoon naa fi nag ne trois heures de temps na ñi dima ma pirate. TikTok bi ku ne ngi dugal somay numéro ñu ngi dugal ay numéro di ma pirate naan ñooy jaay sunguf si. ñu dellusiwaat trois heures. ma ne hmm. numéro yi daw ci émission yi may def hmm. mooy sama numéro. sunguf ma gone. man aw ma gone. Hmm. samay téléphone maa koy uyul sama bopp. kenn du ko uyu. Hmm. gis nga ñaan boo ci duggee boo ci dugalee intermédiaire ak nit ñi nga xam ne ñooy toog ak yow. yaa ngi yàq ñaan. bul oo moodu moodu bi bu la oo nga encaissé xaalisam ba pare. Hmm. tëdd fi nga tëdd mu oo nga bañ koo jël. mayu leen lool. kon looy wax bi ndaw ñi nga xam ne juróomi waaw. moo njëkk te moom moo mujj. dëgg moo njëkk te moom moo mujj. kaddu gi nag kum doy. kaddu gaa ngi mooy wax lu du dagg. bii mooy trois heures kaddu gi nga xam ne duy wax luy dagg trois heures de temps la am du trois heures de temps ku ci contacté ak Serigne Ousmane li nga ci bëgg a xam dina leer ak ban. kon su ma neexee mën naa ne ndaw ñi ñi mënta def juróomi minutes yu mat na ñëw jël trois heures de temps. ku ci ñëw di nga bég. ku ci ñëw hmm. di bég ku ci ñëw ku ne laade hmm. di nga bég ku ci ñëw nag xaw ma ci yow dara ku ma oo jotoo ma nag sa aajo du faju acca kon ndaw ñi may eh, kii saa su nekk bëgg lii di gal laaj wala garabu néew kàttan di ngóora kon bàyyi naa leen nag kii di Serigne Ousmane Niass ndax dégg ngeen fa mu daane leen nettali ci ñu borom la dàqe sachet boobu nee na trois heures de temps fexe leen ngeen jëflanteeg moom mos ba xam lan lay saf acca waaye dama ñëw ci cuuraayu seytaane bi tey ndax mel ni boobu mu ngi lëmbi réew mi de. mu ngi nii de lu tax nga tudd ko sax da ngaa ci retour yi. te da ngaa jot ci retour yi laa de gis nga cuuraay gi moo nekk nii maa ngi gis nga ku nee ngi cité say cuuraay naan sungu fak njalabaan di defi mbir hmm. Cheikh gaa yi liggéeyatuñ liggéeyatuñ dañuy foddi kàcc loo duxut taalibeem mënoo doon sëriñam cuuraay lii dem nañ ba ci dëkk yu fasantikoo ci àll bu xonq bi bene gine Conakry fépp lañ dem liggéey gàllaaj gi lii moo ci des jeex na ku yéex doo ko fi fekk ku yéex ku ne laade doo ko fi fekk ku ci ñëw nag jëriñu mhm. cuuraay lii ku ci ñëw jëriñu jigéen ñi nga xam borom kër da leen a të. Hmm. Cheikh lii. lii ku borom kër të ku borom kër tëwoon. Hmm. nga ñëw ma coppati defal la nga dem. def fas gi may def ci yow takkal la ko sa ndigg. Hmm. fas gi nag maa ngi ko tuddee bum tilim. ñaata fan. ñetti fan. ñetti ñett rek lu waay man du métti. ñett. bu tilimee rek xamal na yow dangay ngay sëy bu tilimun nag gën a la daju. te dellu si waat seeti Serigne Ousmane mu wax la say sarax nga def ko. jërëjëf jërëjëf euh, Serigne Ousmane Niass am na solo ci ponk yooyu waaye damay ñëw ci tawat yi ba léeg su ma nee tawat yi damay ñëw ci ñi nga xam ne dañ may jàmbat bëñ bu metti loolu daa mel ni am na loo xam suñu borom dénk na la ko ci. mu ngi nii képp koo xam ne bëñ mu ngi la sonal. di jàpp sob bopp bi. yaa ngi dégg ñëw ba fii ngay ngeex ngeexi naan di ngeex ngeexi seet si ma lii damay coppati jox la ko nii da koy suur boo koy suuroo nii ngay def dangay ngay ngaa ngay def boo paree demal nga tëdd nga nalaw delloo naa la sa ndey ak sa baay jeex na dootoo ko déggati laaj ma ci xam-xam acca damay ñëw nag ci gàllaaj ci gàllaaj rek laa ñëw ñu yaatal bu baax a baax léegi damay ñëw ci euh, ah. euh, euh, ñu yaatal bu baax a baax damay ñëw ci lii nga téye lii nga téye nag bëggoon naa xam lan la ndax gis naa nga téye ñaar ñaari kaan non man nag damaa sob lu ma gis dinaa laajte ñaari kaan moom ngay tudd baal sob gis nga lii baal sob baal sob sëñ Cheikh bëgg nag moom ma xaaj rek lii nag moom waxuma. sëñ Ousmane lii lu tax sëriñ su ne. Hmm. mu ngi takki jaaro. ndi téye mbir. naan li naan lii. Hmm. dama koy jaay lii si lii lay dox. bagage bu baax. ku ko am. Hmm. a ah, doo ko jaay li ñuy takk naan dañ koy jaay lu bon la. lii sama yëf la man maa ko moom. bàyyil ma jenc ko. la lekk. lii dama ciy seet. dama ciy seet. lii dama ciy seet. dëkk tubaab bu ma dem. ci lii laa leen seetalee su ma la ko tegee xam lu nekk ci yow yëpp. wax la luy tàkk ta du fay. lépp la may wax lépp. lépp la may wax. lu waay mën du metti soo mënee mën naa neel mën naa boo mënu neel mënuma ñuy dox acca euh, ñu yaatal ba léegi damay ñëw ci <coughs> bàyyeegu ma la ba léegi lee ma gis ne lan la le yëkkatil ma ko yëkkatil ma affaire boobu noonu ci lan lay dox njëriñam. tubaab na ñëf ñëpp déglu képp ku ci liggéey ak tubaab bëgg tubaab bi. nga ngay wax convaincre ko di koy wax mu muy di koy wax muy def te du ko sañ bañ laa de mm-hmm. fexeel nga déggante ak Serigne Ousmane jox ko sa tur ak turi tubaab bi. sa tur. turi tubaab bi. kese soxla ma def lu may def tubaab bi dina la topp ni xaj boo sàgganoon nag entreprise ba ngay liggéeye yaa koy moom. ku ci ñëw ma dimbale la moodu moodu yi hmm. nag da ngeen a sonn amu leen dara lu ngeen am weex ngeen ko ñu lekk man. Oh. oh doy na waar oh, waaye bul jo métti na sëñ Ousmane non ci Modou Modi nag jar naa jooy de billaahi li ñuy daj lu ne dañ koy daj. non nañ góorgóorlu rek sëñ émission bi mën a àgg ko jàpp ci rek jàpp moom jar nañ ko. jàpp ci rek jàpp mën a continuer. acca euh, bi moom suñ demee ba di koy pause moom xam nga ne seriñ bi du demee bay euh, tour ay xéwal ndax di jooy. non jar na ko nag waaye lu xew lu xew nag sa xol lan. Moodu Moodu yi dañoo sonn. sonn lu ne ñu ngi koy jël di ko jox sëriñ yi. pour lan mënuñ leen a ñaanal. war nañ cee jàpp de kum neex man bul ma oone ma ñaanal ma waaye pour lan ñun mënuñoo jàpp ba mu seetlu toog ñaanal Moodu Moodu yi. pour lan. ba ndey ba baay ku ci nga. ku ci doonul xaadir laayeen nga ku ci doonul laayeen canaba nga wala leneen ak leneen ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay sa doomi senegal jugee sa réew dem réewi jàmbur di daan dooleem ngir bëgg a dimbalee ndayam ak baayam ak waajuram yëkkati alal jox la ko nga nga nga di ko bolake toog nga foog ne moom nga koy def. baax na waaw bés am na baax na moom kay doy na waar moom euh, ku koy def de moom war nga koo bàyyi dégg ngeen fa Serigne Ousmane daaneel la am na solo acca waaye damay ñëw ci feebar dinaa ci ñëw lu ci mel ni hémorroïde waaye dinaa ñëw ci ndoxum siti yooyu it yaa ngi ci def résultat yu màcc ayib. sunguf si hémorroïde ballonnement mm-hmm. ndoxu cité mm-hmm. jàngoroy kajoor moo ko tax a jóg hémorroïde ballonnement mhm. ndoxusiti siti kajot moom moo ko tax a jóg mhm. boo yoree nag hémorroïde bi nga xam ne dafa nëbb mhm. def def def bul bi da koy traité raxas ko ba mu set wecc dagg la koy def ci sens nit a ngi nekk ci biti di liggéey bu ma demee ndeysaan bitim réew ba gis doomi sénégalais yi sama àdduna dafay tukki bu ma leen gisee ñuy dox ci nees bi sedd bi di leen jàpp danga ci gis koo xam ne dafa yore loxo bi dafay métti ba nga xam ne wala bu jàddee sax ñu ne ko bul jàdd parce que police yi ñu ngi taxaw foofu boo jàddee dinañ la téye ci lan nag amut kayit loolu tamit nañ ko seetaat ñu delloo ci suñ xel suñ doom ñooñ suñuy doomi réew lañ mm-hmm. gis nga réew mi mm-hmm. bu neexoon mm-hmm. kenn du waaliyaane ji fenn kuy waaliyaane ku ne la da ngaa fekk ne sa dëkk moo tëggut président man may wax ak yow li ngay liggéey ñëpp ñu ngi ciy teg seen bët foo romb ndakaaru xotti nga ko def ko tëli football mi mu ngi dox làmb jaa ngi dox yeneen ak yeneen ñu ngi dox dafa am loo xam ne doxut ci suñu réew mi président dañ laa teg di wax ak yow nga doy ñu ñu yëkkati suñ kàddu jox la ko yëkkati suñ kart aussi jox la ko yaa ngi liggéey waaye ñi ko jege buñ ko jay am na nag ku ma dégg mu ne nguur des koy jaay waaye ku foog ne réew mi mu ngi dox yaa ngi nax sa bopp diwlin gi yokku na ceeb bi mm. yokku na essence gasoil lépp yokku na ñi ko jege nañ ko ko wax moo tax ma ne la kuy waali yaane ku ne daa fekk sa dëkk moo tëggul réew mi bu neexoon kenn du dem fenn leer na nañ jërëjëf euh, message bi am na solo waaye la nga jot a jàllale it lu am njëriñ la atia damay ñëw ci xaalis su ma ko waxee nag sama mbokki ndaween ñu tax ma koy laajte ak ñu sant Diallo ku bëgg xaalis bu gaaw. lii laa lay jox nga sangoo ko sum Soum gis nga ñaan yàlla. dafa toll fi mu toll nii boo koy def ngay wane preuve. ñaan yàlla foofu la toll booy def waneel preuve lii boo ñëwee dina am ay sunguf yoo xam ne dañ koy boole ak moom sunguf si duma ko tudd sëriñ si dima piraat juróom-ñaari neewit ci lay bokk ñeenti yi ñooy wër siwo bi ñett ci biir siwo bi lay nekk ànd ak alxuraan jeeg sunguf si nga sangoo ko juróom-ñaari fan mhm. wóor na Cheikhu Tidiane Chérif mi may yaakaar ak tariqa bi ma jàpp juróom-ñaari fan amoo alal mhm. o ma ma delloo lang ma joxoon kii nag mhm. duma ci neexal kenn ku kàddu gi doy ñëwal nga jël ko kum doyut bu ma oo aca jërëjëf am na solo sëriñ Ousmane Niass jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yooyu aca fa may jeexale nag bokk na ci xew-xew mu di actualité <laughs> gaay su ngeen ko gisee am na lu tax mu jóge Kaolack ñëw de te suba mooy 3 euh, novembre di convocation président Ousmane Sonko. yow Ousmane ah. demal. Sonko. Hmm. na dem. na dem wuy ji. Sonko. Hmm. demal nga uy ji. la may def nag. Hmm. maa ngi koy def. ci sa jaada. wasalaam. Eh, eh, man pare